bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi sëñ bi mu ngi leen di nuyu ku si nekk si turam ak santam si nuyoo bu si nuyoo mooy salaamaaleykum wa rahmatullah. mu ngi sant si seen teewaay fii. nee na mu ngi sant si seen teewaay fii nii. bés yu tedd yi. si bés yu tedd yu màgg yi fii nii. ngeen jël seen tànk yu tedd ngeen jël seen tànk yu tedd yu am barke yu am xéewal yi fii nii ñëw seet si ko tey ji. wane wan ñu ne a bokk. ngeen wone seen cofeel ci moom wan ko ne ko ñun ak yow ñoo bokk bés bu tedd bi ñu jublu si. ñun ñëpp ñoo ko ñun di wane ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. baat yu tedd yi nga xamante ni Cheikh Alassane wàccee na ko fii léegi. ñuy dëgëral wax nee na daf ñuy dëgëral wax yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ne ut leen leen yiw ci borom kanam si borom kanam yi nga xamante ni yàlla dafa def si ñoom yiw ñu koy gis nii nee na sëñ bi nee na mi ngi gis yiw googu noonu si Cheikh Alassane Sène alhamdulilah sëñ bi nee na mi ngi ñaan yàlla si mbaaxam yàlla na dëgëral la dolli la leeru xel dolli la leeru xol yu tedd yu màgg méngoog sa ruux yokk ci ak lim fi fekkoon mu defaraat ko mu gën a baax yàlla na la yàlla defal loolu bésu tey bu màgg bu tedd bii seen dëgg dëgg ci seen teewaay yu sell yu rafet yi. bés boo xamante ni bu màgg la bu exceptionnel la. bëggoon naa sa waxtaan bi. bëggoon na ci sa waxtaan yow Cheikh Alassane. waxtaan bi mu wax waxtaan bi nga xamante ni wàccee nga ko fi ñëpp dégg ko. dégg ko képp kuy doomu aadama di noyyi dégg waxtaan bi. ndax waxtaanu espoir. ndax waxtaanu espoir la. waxtaanu doole nit fit ko demal ca kanam. waxtaan boo xamante ni ku ko dégg sax soo amutoon fit da ngay am fit pour jëm ca kanam. waxtaanu xam-xam la. waxtaan boo xamante ni la dañ koo teg ci xam-xam. waxtaan la boo xam ne exemple bu mu la jox rek daf koy tëral ci yoo xam ne da nga gis ne moo fa nekk. li nit di waxtaan boo xamante ni exemple lu mu wax day jël exemple teg ko ci leer loo xamante ni doomu aadama foofu rek la war a jubal pour jël fa njëriñam. yaakaar paase wut foofu. nee yaakaar paase wut foofu. dekkal xolu nit ñi si yàlla ak yaakaar. dekkal xolu nit ñi si yaakaar paase wut foofu. ak yàlla ak yàlla. paase wut foofu paase wut foofu noonu. kon ñu ngi kontaan bu baax. nee na kon sëñ bi Cheikh Alassane nee mu ngi kontaan sëñ bi nee na mi ngi kontaan bu baax. ci waa dëkk bi yëpp itam. ci waa dëkk bi yëpp tamit. ànd ak man di wax ci suñu làmmiñ. saay bu nekk ñi ngi ànd ak moom di ko waxal ci làmminam. mu ngi leen wax marhaban bikum bienvenue si seen kër si seen mbokk ngeen fi fekk gis-gis yu yaatu yi yëpp. mi ngi yaakaar si seen gis yu gis-gis yu yaatu yi yëpp. économique. Sénégal économique. fuñ ko war a tabaxee. fuñ ko war a tabaxee. dëgg am na yu jiitu nit ñi xam nañ ko ba pare. sëñ bi nee na dëgg la am na yoo xamante ni jiitu na ko fi nit ñi xam nañ ko ba pare. façon bi nga waxee. waaye façon bi nga xamante ni moom nga waxee. parce que tabax économie réew te boole woo ci diine. parce que tabax économie réew te boole woo ci diine ji. tabaxoo dara tabaxoo dara. bu diine jiitoo nag. su diine jiitoo nag. yàlla mooy àggali yàlla moom ci boppam mooy àggali tabax ba. yow commencement rek nga ci am. ñun doomu aadama yi commencement rek lañ ci am. ak yéene ak yéene. waaye yéene yi nag yàlla dafay tànn ba gën a rafet rek mu defal ñu. waaye yàlla dafay la gën a rafet ci yéene gi rek mu dafal ñu ko. ni nga waxee nii ni nga waxee nii ci diine ak euh, tourisme religieux. ni nga waxee nii ci diine ak ci tourisme religieux. amul dara lu gën a kawe loolu si woo nit ñi ci. amul dara lu gën a kawe loolu woo nit ñi ci jëmee leen ci yàlla. jëmee ci diine. jëmee leen ci diine. ndax nit ñi. ndax nit ñi. comme ni nga ko xamee. comme ni nga ko xamee. jaxase nañ lépp. jaxase nañ lépp. boo waxee boo soo waxee tourisme. kenn du gis lu leer. kenn du gis lu leer. boo ko jëlee soppi waaye soo ko jëlee soppi ko mu nekk religion. yaa ngi tabax loo xam ne lu bees. yaa ngi tabax loo xamante ne lu bees tàq la. loo xam ne. yaa ngi tabax loo xamante ni bu tabaxoo waxuma la jullit yi rek waaye ñeneen ñi nga xamante ni nekkuñ jullit sax dinañ si gis seen bopp parce que kooku noonu dëgg-dëgg mooy jullit mooy defar loo xamante ni lépp danañ ko jëriñoo te yii nii bokk na si say xalaat te doomu adama lépp lum xalaat rek xamal ne yàlla moom moo ko dugal si xolam nee na si kàttanu yàlla mu ngi yaakaar di ñaan pour loolu noonu lépp mën a réussir incha allah réaliser wu. nga jéem koo taxawal. nit kuy jéem. nit kuy jéem. wóolu. yàlla wóolu yàlla si li muy jéem. kenn mënu jaar digganteem ak mu jaar digganteem ak moom li muy jéem noonu te ba du fa yegg incha allahu taala. bu dogoo rek. bu dogoo rek. yàlla teg loxoom ci loxoom. yàlla teg loxoom ci li muy dox ci loxoom incha allah. yàlla na la yàlla barkeel. yàlla na la yàlla dimbale. yàlla na yàlla ubbi xoli nit ñi ñu dégg sa wax. ñu gis say jëfi tamit. ndax nga nekk modèle boo xam ne. ndax nga nekk modèle boo xamante ni. li bàyyi doon gént si dundam li bàyyi gént si dundam. nouvelle génération bi yaakaar. nouvelle génération bi mu bàyyi yaakaar. te nee na loolu la bëgg wane. ne maa ngi nii feebar màgget moom cheikhul islam aw ma kattan waaye sama liggéey yëpp sama liggéey yëpp sama liggéey lépp mooy liggéeyal yonantu bi sallallahu taala alayhi wa sallam su ma ko defee du ma ko defee xeex du ma ko defee xuloo waaye dinaa oote bil xusna si rafetal wal ilm ak ci xam-xam ci xam-xam. ci loolu. mi ne ci loolu. dama nouvelle génération. mi ne ci loolu la Baye bëggoon wax ne dana indi beneen nouvelle génération. nouvelle génération xam nga lu muy tekki. nouvelle yaakaar na ne xam nga bu baax li muy tekki. mooy génération bi yëpp. mooy génération bii nii yëpp. tunuur beneen lañ yaakaar. beneen lañ yaakaar. boo xamante ni dina mën a tabax. boo xamante ni dana mën a gént. boo xamante ni dana am fit. pour soobu ci mbir yi. ndax xam ne dara du baare lu dul yàlla te yàlla la wóolu. ndax xam ne dara du baare lu dul yàlla te yàlla la wóolu. te loolu noonu yow yaa ngi ci. nee na loolu la la xamee ba mu dajee yow ca Nigéria. ba mu dajee yow fii tamit liñ ko njëkk a wax. mooy fàttewut ko alhamdulilah mu ne mi ngi lay yaakaaral yàlla tamit bu baax a baax ne ndimbalam dana ñëw ci yow mhm. nee na nee na xar-xaram yu jekk yi yu rafet yi euh, euh, euh, leetaru yàlla la leetaru yàlla la pour joxe yaakaar mu jëm si yeneen xolu jaam yi alhamdulilah yàlla na yàlla defal ñu allahumma sëñ bi nee na kontaan na bu baax a baax